lan ngay nuyoo. waaw salaamaaleykum wa rahmatullah waa sëriñ moo de ñun li ñu xam ci moom te ñuy waajuram di soxnaas waajuram wa sama sang bu baax ba Serigne Dame Lo Ngaabu yal nañ ko yàlla fayal ak Serigne Touba. xamuñu ci moom leen lu dul ab yar ak i teggin ak lislaam ak diine ak bëgg lu baax am ngërëmal waajuram lool nag loolu doomu aadama yëpp seere ko waaw waajuram ba nag yàlla na xippee àjjana sëriñ Modou nag ñoo ngi koy ñaanal fan wu gudd bu ànd ak wér ak wérle te xam ne noonu moom ndegam seexul xaddi mi ñu gën moo ko am monsieur moom mii te liggéey bii mu sombi ku ne xam na ne xel ah dina am ay fakkastal waaye fakkastal yooyu duñ ko mënal lenn ndax doom moom bu xasee ba am ngërëmal waajuram doomu aadama mënalu ko lenn mën naa jàng nag loolu daam waaye du daanu mukk ndax nun ñi nga xam ne waajuram dañ fa bàyyi ca kër ga de la war yëpp loo mag nu koy defal kon nag loolee luñ koy sante la noonu nag mënut a ñàkk ci doomu aadama noo koy ñaanal ci doole Serigne tubaab fan wu gudd wu ànd ak wér ak le yal na ko yàlla ak barkeb baayam wallu yal na ko yàlla ak seexul xaddim wallu te dana ko wallu sax ndax moom de ah ngërëm am na ngërëmal waajuram wa Serigne daam Lo nga bu sama sang bu baax ba am na ngërëmam bu baax kon nag nii ñoo ngi koy ñaanal bu baax loo yàlla na yàlla suñu borom guddal fanam wéral cër yi. yow bi déggee affaire bi dégg xew-xew bi yow. metti ma lool nag metti ma lool nag metti ma lool. sama goro laa àndal nii soxnaa sëñ seexu naa lool metti ma lool amatuma jàmm mënatuma lekk mënatuma def leen ndax kenn ku ci nekk am nga ay bëgg waaye am nga ñoo xam te ne bii xëy na soppuñu la su ko defee say bëgg di mititlu ña nga xam te ne la yàlla xam doy na di kontaan waaye nag moom sant bu baax rek ndax xam naa lii de day doon jiglaayam ba faaw bu soobi sëñ Tuuba yàlla nañ jiglaayam sant nañ ko bu baax yëg-yëg bi nag metti nañu waaye daanaka nag moom ñu ngi koy seral bu baax ndax xam nañ ne xay lépp yëfi noonu la rek yëfi noonu ak yëfi seytaane waaw duñ ko mënal lenn nag wasalaam sëriñ moodu man waajuram bu góor man maa jiitu ci këram waa waaw waajuram góor muy sëriñ daan loo hmm? soxna ndaw soxna ndaw ñooñee nag waa ñooñee nag lañuy ñuy wax xamuñu ci dara ndax sëñ Modou ba muy tuut tànk ba nëga ni li ñu ko xamee mooy lenn jàng alxuraan maandu ragal yàlla moom lañ xam ci moom su musaa ñëw ca kër waajuram ba tànkam yi musu bu ko koor gi ñëwee day wàññi ñeent ko wàññee ne ah, soxna si sukku tànkam sant ko rek lañu dem def nañ ci yëg-yëg boo xam te ne bii nag bu ñu metti waaye daanaka léegi ñu seet bu xool sëñ Tuubaa rek daanaka doo faale yëfi noonu ndax dafa sonnoon lool kon nag yoon bii mu dox jëm bu mu teggi tànkam bu mu geesu na dox rek duñ ko mënal dara bu soobee Serigne Touba yal na ko yàlla ak barke. waaw. Ah, li fi nekkoon mi fi ba léegi képp koo xam te ne jël nga sa doom déplacé ko yàlla taxutoon nga jàpp. bëgg taxutoon nga jàpp Serigne Touba taxutoon nga jàpp dangaa jàpp kon ngir intere waaye yàlla la taxutoon nga jàpp te xam ne sëñ Modou mii li fi nekkoon day yokk waaye du wàññeeku day yokk rek waaye du wàññeeku ndax ku dem ca daara jee dikk ci da saalam bii nga xam ne bii moom benn la kon nag képp koo xam ne bii jël nga sa doom da koy réccu képp ku xàcc wuti feneen nit kooku yaa xam seetal la la doy nga nekk moom itam mu nekk ci li ko doy ak ñaanu waajuram ak barkeb sëñ Touba waaw loolu daal lañ xam ku bëgg lu baax nag bàyyi fi sa doom ah ku jël sa doom it kooku yaa koy yëg rek kenn du la woo waaw jërëjëf jëf jërëjëf kontaan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 mën gis seen ëllëg manam di leen seetal waaye nak sëñ bi dina la defaral jaaru bi nga xamni ni moo lay aar bi nga xamni ni moo lay may bayre waaye jaaru bi nga xamni moo lay ubbi ci wàllu wërsëg jaaru boobu la ñëpp di wër moom mi moo koy defar moom ma nga nekk Touba ca ginnaaw université Cheikh Ahmadou Bamba Madiana 1 Dakar rond-point 26 cité Damel ba noppi nak da lay livrer partout wooteel ci 77 335 14 14 77 335 14 14